nag ci biir réew mi yépp mbokk yi xam ngeen ne fan yi yépp ñoo ngi koy ruumandaata di ko waxtaanee li xew lu doy waara waar la musiba mab ba kumba la ndax fan yi ñu génn Touba ci kanam ak xaalis bi nga xam ne moom lañ doon dajale dafa am benn journaliste nag bu nekk fii ci département bu Mbacké moom dafa am benn soxna boo xam ne ab faatu faatu la nekk bitim réew réewa yónnee journaliste bi cent mille francs ngir mu dugalal ko ko ci Touba ci kanam waaye journaliste boobu nag jëlul xaalis bi jox ko waa Touba ci kanam daf ko daal di ngembal la loolu nag xamante ni lu doy waar la kooku ban journaliste la ab correspondant la wala lu xew loolu sax daat tax waa Touba ci kanam ñoom daat nañu si àddu nee nañu en tout cas li am ba des am na ñetti journaliste yoo xam ne Touba ci kanam ñoo ngi liggéey ak ñoom waaye ñetti journaliste yooyu du ñoom la faatu faatu bi jox xaalis bi waa Touba ci kanam nee nañ jox xaalis bi moom am na te journaliste la boo xam ne bu nekk fii ci département bu Mbàkke la waaye nag Touba ci kanam ñoom ñuy ñu daal di ci ubbi li nga xamante ni maanaam mooy ab pare di saako ci askan wi ñu vérifier fi nga xam ne fi la ñuy jaarale seen xaalis mbir mi nag mbir mu doy waar doy waar la ndax nag fii ci département bu Mbacké journaliste bi nag kan la cent mille francs yi ma ngi ci poosam njaw di wéy di desu xambeen danañu si dikkaat ak yéen wax leen journaliste bi kan la bawal